li di rafela uh, a chapta li a non profit organisation la ñom nek dañ ci uh, semaine bu passé ni dañ am uh, li di nga xamni modi meeting pour dal di set ci at buñ joge ni ñom luñ dal di jota def ak nak at buy ñew lu nga xamni nak lañ paré pour def bu mu wax sa ah, ndaje bi ni kii di mayoress of Banjul City Council moom nag wax na ah, lii di nga xam ne nag moo di jigéen yi ah, naka la moo amee solo pour ñu dugal seen loxo sa lii di nga xam ne nag moo di politique ak uti place yi njiit. jigéen ñi ne. mam naka demnaɓe daldi wa alii hani mooyi jigeni jigeni e galankor rinde faraldi jankowantel sin duge si liɗi hani moodi politique Fatoumata Diakhoumpa Cissé moom nag wax na ni jigéen ñi nañ ñëw ñu nekk benn ñu daal di uti lii di xam ne nag moo di place yi mu ñëw nekk jigéen. Rafela lii network la bu nga xam ne nag jigéen ñi lañ tànn ah, si biir ah, réew mi pour daal gis ne nag ñu daldi taxawal lii di nga xam ne nag moo di dooleel jigéen wax nañu nag lii di ah, Rafela bi nag mu ci si dëkki Afrika yu bari Paradise TV News Mamadou Koli.